salaamaaleykum nuyu naa leen yéen ñëpp maa ngi tudd Maimouna Faye Bessane nekk comédienne euh, ci biir Dikoon maa doon interpréter rôle lu Khady tout au début dafa nekkoon benn euh, mindaan bu nekk ci kër di liggéey donc force la ma dugg ci powu Khady moomu bi nu ma ci duggee mooy ni may solo ni may maquillé woo et puis ni may comporté woo puisque miinu ma xamuma et que je ne me sentais pas protégée parce que jàpp naa ne aw ma mbokk kenn donc non rek laa doon euh, défé par la suite lañu ñu xam ni que Khady ak Tafa ño ñoo bokk ndey ak bay et que khadi amna famille amna papa amna na yaay yooyu euh que famille bu bu bu bu aisé la bokk donc tamit changement day am fofu

am nay téléfilm yu ma bokk ay court métrage long métrage et tout pour diir que ni euh, théâtre yàgg naa ci depuis ko ma nekk xale laay wax sax depuis jardin d'enfant parce que nit ku nekk ni ngay ni nga nar a mel ëllëg danga nga koy manifester bi nga nekkee xale buñ la ci jàppalee mu dem buñ la ci jàppalewul nga jàdd ko côté depuis xale je dis bien nag depuis ma nekk xale bi may def jardin d'enfant laa commencé def ay théâtre ay danse ci ay écoles yeeg yooyu sama papa ak sama yaay jàppale ma ci may dem di dem ba ñu xam ne ne carrément fii kii nekk na mag et yooyu ñoom jàppoon nañ ne ay détails la ñu commencé di ma tere di ma tere nag di ma tere may làqatu di dem di ñëw di làqatu di dem di ñëw mu lay jaral ngay daw jàng sax di dem di ñëw ba yàlla def li muy def nii tey jii ñu nanguwaat ko xam ni depuis xale laa ko bëggoon ma continuer di ko def euh, non théâtre yàqul sama jàng yàqul sama jàng parce que jàng naa am sama bag ba nek université di jang du ma ne dama ko yàq carrément mais amna lum ci wañi tuuti ba def BFEM la gënon metti ngay wara dem cours du soir def cours du soir mat histoire géo français dama dan daw jang dem Lali Bassang top théâtre bi te téwul ba résultat yi génnee dama dagg d'office bac tam pareil da nga don daw jang di créer di wax yu kenn xamul dal genre lay bu ne di ko wax sa kër juste rek pour mën dem ci théâtre bi affaire yoy noonu ba am téwul bamu mu ñëwee bac damaa d'office donc damay ñaan yalla rek licence bek yoy noonu ñom massa yoy yëpp fekk ci ko euh, mën naa ni ka hadisar Sarr bu njëkk neexoon na ma trop parce que daf ma permettre ma génné ni que man xalé bu yarou laa xale bu teey laa xale bu dal laa parce que li tax ma wax loolu mooy xadisaar bu mujj bi dafa xaw a méngoo ak a Faye Bessan tuuti ci ay jikko donc lii nekk surprise ci man loolu moo may gën a neex muy xadisaar bu njëkk bi ci biir théâtre booy def formation dañ lay jàngal lu bari dañ lay won ni que artiste da war a polyvalent mën lu nekk dara du la jaaxal ci loolu laa gëmee sama bopp ma ñëw production commencé def euh, dikkoon ma dégg ni que dañu am projet bu nekk ci biir ma daal di def def sama demande ak sama CV daal di ko fay déposer mais mënuñ won xalaat déjà biñu ñu gis sama CV dañ ne kon yow jàng nga ma ne leen bien sûr jàng naa ñu ne mosuñu la dégg nga wax benn mot en français ma ne la c'est parce que rôle biñ ma jox leeralaguñ ma na Khady Sarr mi jàng na wala jàngul. dañ ma jàppee benn mindaan boo xamante ne illettré la jàngum analphabète affaire yooyu loolu moo tax du ma doon utiliser jëloolu mais jàng naa ñu xool CV bi xool et après ñu commencé nag am yaakaar ci man jël ma may def foofu ay training ñuy xool di xool ba loolu am fi may njëkk wóoloo mooy dañ ma def loo pilote benn émission bu ñuy wàcc ñu def ko après ma doy leen yàlla def sargal ñëw ñu amoon tuuti euh, kii ma def ko mu jàll table yaa ngoone bi ñëw itamit ñu jox ma ma def ñu jàpp ni jàll na dina métti trop parce que boo boolee ñetti produit di ko defandoo day métti trop ci ki koy def métti ci ki ko nar a présenté euh, nga war a tourner sargal mën na la jëlal toute une journée nga dem dikkoon soxla la tam mën na la jëlal toute une journée donc jour yi bu ñu méngoowee rek day métti et que mën nga porter préjudice kenen ki la preuve daf may dal xam nga mënuñu bolé sargal ak table ak euh, dikon parce que ñun ñoy def programme yi donc dinañ xam bu baax li normal ak li normal mais daf may dal table ya ngone wara am dikon wara am mané len damay dem tourner ji table ya ngone ba paré soko ñew nga dégg genre tafaasaar gi nga xamantani wax rek lañuy def nan la dikon moy priorité moy ku ci nekk rek. fa nga nekk gëm nga sa bopp luy jóge fa fële ni munaas noonu dañuy dem defi table ba pare nga soog a dem mooy ku ci ne soxla na ma fa mu nekk wóolu nañ ma ci liñ ma jox duma am leneen lu may def lu dul boole leen soit ma xëy le matin dem defi sama table ngoone pare ak sama coono dem dikkoon tourné ak sama coono pare dem ñibbi lépp ci xol bi la. théâtre dama cee mbappat jàng ci lu bari ñu forme ma ci lu bari. ci biir formation bi may xoola ki waxaale de passage jotaay askan wi nga xam ne falaa jot a jaar dañ lay jàngal tey ñu ne la présenter émission am na nooy waxee ñu ne la noonoo waroo defee nii waroo def nii waroo defee naa te day génn cadre théâtre ñu jàpp ni day génn cadre théâtre may wax ni aar dafa yaatu dañ lay jàngal lépp duma ko boole xam naa ni lii personnage la boo xamante ne damay interpréter rek role bi jàll xam naa ni bii man may mën Maimouna Faye Bessane en personne maa war a taxaw maa war a wax loo xam ne nit ñi dañ koy dégg je sais faire la différence. Euh, différence bi ma ci gis mooy que ni techniquement duñu benn mën naa ne rigueur bi nekk bés nekkul ci dikkoon malgré dikkoon am na rigueur mais système bi ñuy liggéeyee moo nekkul benn donc. jaar na bes interprète ci benen rôle bu wuté ak dikon mu am différence bu mak sax mak sëkk mais yoy yëpp je me dis que ni man duma sonal parce que man artiste la donc n'importe quel rôle buñ ma joxé warna mëna taxaw pour interpréter ko du ce fait du metti metti bobu rôle la rek boo ma ci leneen tam ma dem euh, li ma di ñaax moy ngeen série télévision bi ñuy waajal ci muy euh, bés parce que bés day refléter li société bi di dund histoire yi ci ëpp histoire yoo xam ne nit ñi ñoo koy dund la di ko nettali ñu koy tourné waat li tax ngeen war ko seetaan mooy ku ci nekk dana la yee dana la jàppale ndax sensibilisation bu mat sëkk moo ci nekk éducation itamit bu mat sëkk moo ci nekk te ñun artistes li ñu war mooy conscientiser ñiy seetaan éveiller leen te loolu mooy bés kon nag xaar leen ko teeru ko ak jàmm mi ngi ñëw nag ci RTS euh, RTS lay daw euh, bi may soog a commencé dikkoon célibataire laa woon aw ma woon borom kër xam nga nekk ci ñu dem ba ci biir yàlla may ma borom kër waaye nag pour wax leen ni sama borom kër xameewu ma ko ci série xameewu ma ko ci tele man ak moom yàgg nañu macha allah boobu xaw ma sax Pikini production xam nga nag génn gu yàgg rek nit ñi dañ ciy wax lu nekk waaye yàlla defal nañu sutura ba tey ji may jàll ci ginnaaw. ku ne xam na ni nag sëy dafa métti yore kër ci boppam moo métti ndax célibataire yaa ngi toog da ngay toog sa papa sa yaay sa waa kër ñëpp di la gereel bu la yàlla mayee nga am borom kër yor kër yow yaa gérer sa bopp loolu moo ciy métti mais man wax dëgg yàlla. sama jëkkër jàppale na ma ci suma amane tournage nuit nima ko daan defee jamonoy célibataire la koy defee batay tey marié suma amé luma wara def même nima ma ni la koy def ndax sama jëkkër mu ma ci jàppale bu baax comprendre nak tamit que ni liggéey bi moko ko laaj te franchement parler warul mën am une grande différence. di gëreum ñëpp nak di sant ñëpp duñ fi nekk nak di lim. waaye buñ nee ñëpp mooy tënk nañu lépp fàttewuñu kenn muy internet yi muy équipe technique dikkoon muy Pikini production lépp rekk ndax liggéey bi métti na mais teewul ñu ngi ciy dem à fond di ci dem ak gëm-gëm internet yi itamit di seetaan yow mi nga xam ne nag yaay bind sa message naan ñii dañoo soof xamal ne mu ngi ñuy neex ndax xam nga lu tax boo ñu seetaanul woon doo mën a wax te ndaxam yaa ngi see ndëgam yaa ngi seetaan mooy li ñuy def mu ngi lay neex kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di kontaan ci yéen te di leen wax ngeen yokk ñu ñaan nag ñu gën a jëm ca kanam incha allah.